bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy teewlu yëpp ci turu jëwriñu Seera Fall ji toog di sëriñ Amdi Fall mu sëriñ Modou Mbenda. ñu ñaan yàlla sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba liggéey bi nga xam ne moom la yor mu yóbbu ko foo xam ne kawe na njortam te ànd ko taalibe yëpp sëriñ bi waxoon nu jottalil ko ay kàddu yoo xam ne mi ngi jëm ci bokk yi ak si taalibe yi naa li ci jiitu rek muy ab nuyoo ak ay cant ak ay ngërëm mu jëm ci njaboot gi nga xam ne ñoom la bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall di feddali ay cantam ak i ngërëmam ci jàpp gi ak liggéey bi ci li nu weesu lépp ak fii nu toll waaye di cantit mboolem ñi nga xam ne ñooy taalibe yi nga xam ne ñoom seen yaakaar génnut maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ànd ak moom ndigal yi nga xam ne waxtu wu ne mu ngi bàyyikoo ci sëñ Touba di rot ci kër maam Cheikh ra sëriñ bi wax ne mi ngi leen di sant bu baax ci li ñu weesu lépp nag nga xam ne lépp rafet na lépp jub na ni ko sëriñ bi bëggee woon lépp amee amee na ko ni di leen sant ci fii nu toll xam ne waxtu wu ne kenn ku ne yaa ngi li sag laxasaay def leen rek muy sa yitte mooy teewlu ndigalu sëriñ bi te am pas-pasub jëfe ko ni ko sëriñ bi bëggee. mu leen di ñaanal sama boroom defal leen kàttan ak wér sama borom defal leen ay xéewal ba lu sëriñ bi digle rek nu mën koo jëfee na ko sëriñ bi bëgge li nga xam ne nag moom la ñu doon jottali tey jii ab ab gannaaw cant yi mooy ab soññee nga xam ne liggéey bi moom ni mu ko waxee moo nu fi indi te moo nu fi bàyyi wax na ni moom liggéeyal sëriñ bi rek moo ko fi bàyyi kon nag waxtu wu ne li mu nuy soññi mooy ñu ñu fas yéene nekk ci ndigali sëriñ bi ndigal lu rot rek ñu jàll ci leneen ndigal kenn ku ne xam na ni koor gii ñu génn muy liggéey bu màgg boo xam ne bii ñëpp ñëwoon nañ si ko ànd ak moom liggéey bi ñu yóbbu ko foo xam ne fii mu mosu faa àgg ndax doxeenu Cheikh Rafaal moo mel noonu liggéeyub Cheikh Rafaal it moo mel noonu tey Cheikh Rafaal ju ne day gàcceel démbam ndax li nuy sàkku mooy waxtu wu nu jëfee liñ say sàkku mooy jëf ji sëriñ bi nangul nu ko waaye lanuy ñaan mooy la say dolli ko mu yokk bu baax a baax kenn ku ne xam na ni liggéey bi ñu génn muy liggéey koor gi yokk na bu baax a baax te fépp fu mu àgg rek na ma ko waxee taalibe yi rek ko fa àggale ñoom rek ñoo taxaw tem jël def li nu man ak li nu mënut ngir sëriñ bi am li mu bëgg si liggéey bi mu leen di sant bu baax si taxawaay bi nga xam ne am nañ ko si liggéey boobu yi di sant si taxawaay bi nga xam ne am nañ ko si liggéey bii nu génn te ba tey ñi ngi si muy ndigal lii ko Cheikh Modou Mountakha joxoon muy si wàllu corniche bi ak si marché Ocass ak si biir Touba muy lépp luy sàmm war mooy dëkk bi te mu ànd ko njabootu Cheikh Fall gépp taxawaay bii nu si am gis na ko te mu ngi si sant bu baax mu ngi sàkkoon nag ñëpp nag gën a jaaju rek te xam ne li sëriñ bi bëgg moom fawu day am kon nañ def yitte ba ni ko ba bokk si ñu koy amal bu fekkee mën noo amal lépp nu bokk si ñu koy amal lii nu dëgmal nag waral jataay bii muy liggéey bu màgg bii nga xam ne tàmm nañ ko ndax du lu yees muy liggéey tabaski yi ñu xam ne fii mu ne toll nañ ci waxtu soññee ko sëriñ bi waxoon ni nanu ko soññee jëkk nag ñi nga xam ne ñoom la bokkal maam Cheikh Ibrahima Fall di jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci wetam nekk ci kanamam nekk ci gannaawam ànd ak moom liggéey bi di njabootug Cheikh Fall gi sëriñ bi nee na gannaaw bi mu leen santee mu ngi leen di soññ si liggéey bii taxawaay bu nu si amoon daaw ak la ko jiitu ñu fexe ba taxawaay boobee nu yokk ko ba mu ràññ ko bu baax a baax ndax am na yéene day lépp lu nu jëfoon daaw suñu jëfi ren jii dana gàcceel jëf joojee kon mi ngi leen si soññ bu baax a baax euh, yéen ñi nga xam ne yéen ay jëwriñ yi nekk si kanamu njaboot gi waaye di soññ nag taalibe yi ak fu nu mën a ne te xam ne lépp lu fi nekk rek taalibe yee ko fi def mi ngi soññ taalibe yi góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku ne def yitte si fexe ba liggéey bii nuy tax taxawu di ko yóot sëñ Tuubaa Cheikh Modou Mountakha muy tabaski yi kenn ku ne def si la nga man ak la nga mënut bépp taalibe mi ngi sant képp ku di taalibe te si sa yaakaar génnut maam Cheikh Ibrahima Fall nga daal di taxaw tem si fexe ba lépp loo mën a am si taxawaay si wàllu tabaski yi nga taxaw si te mu ñëw si waxtu wi nga xam ne moom lañ ko yittewoo ngir na mën koo jébbal ki nga xam ne moo tax mu jóg di Cheikh mun Mountakha di ñaan nag yàlla sama borom defal leen kattan ak i xéewal ba ngeen man ko sëriñ bi di soññee waa bitim réew mboolem ñii nga xam ne ñooy murid yëfeete foofa. te waxtu wu ne ndigal lu jóg ñu am si taxawaay bu ràññiku lool li sëriñ bi bëgg lépp ñu bokk si ña nga xam ne ñoo koy amal sëriñ baa ngi leen di soññi yéen ñi nekk bitim réew muy Europe muy Amérique muy asi muy muy muy Afrique fépp fu fi ab daayira ne fépp fu fi fédération ne pépp fu fi kuréel goo xam ne gi dañuy liggéeyal sëñ Tuubaa ak nekk te ñu am yaakaar si ne war na noo mën a jëfal Cheikh Fall si liggéey bii sëriñ baa ngi leen di soññi si tabaski yi ñu xam ne wàccul kenn kenn ku mu si mën a doon nee na lépp loo si man nga def ko kon loola ñun ñëpp déglu nañ ko li si dolli ko mooy képp koo xamante ni kii yaa ngi am looy jëf na ñëw si sëriñ bi ndax moom day sàkk na ay ndaw yoo xam ne ña nga fa mu wetam di saytu liggéey bi lépp lu fi egg si incha allahu danañ ko teg si loxoom ñu jëbbal ko ki nga xam ne mooy tax mu jóg gannaaw bañ ko jaaralee si jëwriñ ya nga xam ne ñoom la tànn jiital leen si liggéey bi. kon sëriñ baa ngi soññ ñëpp fu fi ab murit nekk daal bu mu ne bu mu jàpp ni génn na si ndigal lii nga xam ne sëriñ bi liggéey bi fonk na ko lool. te jàpp na ko lool ndax lépp lu mu si jëfoon daaw dafa am yéene yi jëf si ren loo xamante ni lu kawe loola la lu ràññiku lool kon nag kenn ku ne na nga fexe ba li nga xam ne moom nga diggeek moom mooy lu ñu la digal nga def ko sëriñ bi digle na képp ko di taalibe mu ngi lay soññ si liggéeyub tabaski yi nga xam ne moom la ñu dëgmal di ñaan nag yàlla sunu borom. sëñ Tuubaa ak Cheikh Rafaal mi mu doon kenn ku ne sa borom defal la ak ngatandu xéewal yu ne gàññ yoo xam ne li sëriñ bi bëgg da si def lu kawe sa njort. mi ngi sant bu baax tey gërëm bu baax di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex di wax ñuy wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amin amin amin amin faal amin amin amin faal amin amin amin faal